maa ngi am mbégte bu baax tey euh, dalal réseau bi nga xam ni dafa nekk réseau pour la renaissance africaine ak diaspora bi te docteur Djibril Diallo jiite ko ñuy euh, ay bare yu jógee Amérique ñu bokk ci daara yu kawe yi bokk ci euh, presse bi ak tamit ñi nga xam ni dañu nekkoon sax ci nguur yi nga te amonfo poste yu kowe dañ ñëw nag ngir euh, déglu li ñuy def Sénégal ci daara yu kowe ci bi ak innovation xam ngeen ni euh, Nations Unies dañu jël li ñuy wax ODD ODD bi ñu màndargal 4 boobu dañu ko jagleel ci njàng mi te li ñuy def ci Sénégal di ci am solo trop ci suba nag waxtaan nañu ak ñoom won leen lan moo waral réforme daara yu kawe yi ak gëstu bi fan lañu ci tollu yan résultat lañu ci am te defe naa ni déglu nañ ko bu baax te day loo xam ni tamit dafa bokk ci lii ràññee Sénégal ci Afrique ba ñu cëral suñu président mu président Macky Sall mu jiite comité di dix chefs d'État bi nga xam ni Union africaine moo ko teg ci décembre bi ñu passé te loolu aussi tax na ba tey Sénégal ci Diamniadio ci cité du savoir su at mi di ñëw tàmbalee de fa ubbi ay jàng yu bees jàng yu bees yooyu dafa am solo trop ndax dafa nekk xam-xam yu bees yi nga xam ne yi ñu jiitu xam-xam yooyu lañuy jëfandikoo te xam-xam xam-xam ñuy ci ci ay at yi di te intelligence artificielle dañ robotique da big data di ngeen koy cybersécurité ak génétique moléculaire ak tamit lu jëm ci mathématique ay simulation numérique ñoom seen yooyu jàng tamit it nañ ci xel bu baax ndax gis nañu ni Sénégal dafa ànd ak jamono aussi dafa am solo dana tax ndax euh, ñu ñi États-Unis seen euh, cosaan fii bon danañu lënkale ndax suñu université yi am nañu jëflante ak université yi nekk Amérique bu ma leen di waxtaan bu may waxtaan ak ñoom wax naa leen am na projet bu fi nekk bu tudd USAID ERA de mooy alal boo xam ni Amérique moo ko jël jagleel ko Sénégal ñu jëmale ko ci njàng mi jëm ci mbéy jëm ci càmm jëm ci napp jagleel ko tamit euh, nan la ñuy fexe ba lépp lu jëm ci mbiru këru xëy ñu mun ko jëf ci mbéy mi càmm gi ak napp gi te tamit ñu jàppale jigéen ñi fay jóg ñi fay jàng ñu jàppale tamit njàng mi jëfandikoo jumtuwaayu jokkoo yi boobu nag société université américaine yu bare ñu ngi cay liggéey am na sax université boo xam ne am na kenn ku fi nekk foofu la jóge muy Virginia teg ndax université boobu moo ko jiitu wante du loolu rek ndax jàng yu bees yi ma wax nii mun na am ay boroomi xam-xam ñu nekk euh, ay euh, africain américain ñu mun fi ñëw di ci jàngale mbasa sax ñu toog Amérique jëfandikoo jumtuwaayu jokkoo yi di jàngale suñu xale yu fi nekk bon jokkoo bi moom day gën a dëgër ndax tey du rekk tukki dem seeti ñi nga bëgg gis mun nga toog fi nga nekk nga janoog ñoom te ay junni junni kilomètre teqale leen te ngeen mun a waxtaan xam-xam mun a law te njàng mun ci xej bon defe naa ni seen tànk yi tànk yu am solo la ndax suñu ci génnee ñoom it danañu mun a tasaare li ñu dégg senegal tasaare ko tamit ci Afrique tasaare ko tamit ci Nations Unies ngir ñu xam ni kat ci Afrique am na ay réew yoo xam ni njàng ak xam-xam bàyyi nañ ko xel bu baax a baax